maa ngi tudd El Hadj Mamadou Laye Ndoye may woowee fii nii donc di membre commission communication vision 129. donc vision vision 129 benn association la boo xamante ne nii ay ndaw ñoo ko constitué ndax am na plus de dix ans mu ngi existé lii ko sosoon mooy ay tour de famille yoo xamante ne surtout Seydina Limamou alayhi salaam ñoo ko daan organisé pour gën a indi xamante seen biir mais dañu dem ba si biir aussi ñoom ñu gis ne kat tour de famille neex na gaa mais am na lu ko gën maanaam ñoom tey. Seydina Limaamu am na lu rëy lu mu leen defal waaye ñoom la lañ ko fay bi ñu demee ba posé question boobu noonu léegi si lañ organisé association si lañ jël tour yooyu noonu transformé ko en une association pour le développement communautaire mais action yi dañ koy concentre sur la communauté layène exclusivement pour l'instant noonu la noonu la démarré woon maanaam ñuy amal ay euh, activités yu bëree bëree bëri yoo xamante ne lépp c'est pour la communauté mais aussi ñu dem ba yamatul ci sëti kese ndax vision 129 noonu loolu noonu la sosoo sës yi ñoo sët ko sos mais dafa dem ba ci biir ñu élargir ko ba ñu bëri fépp fu waay jógee dem na ba am ñoo xamante ne sax duñu ay laayeen yu commencé ñëw bokk ci association bi ngir la pour que ñu mën a apporter leur pierre à leur édifice ndaxte bu weesoo euh, action yi ñuy def ak yooyu noonu yëpp ñun on se veut être des ambassadeurs du Mahdi te ñun euh, ay laayeen lañ mais dañu bëgg que nit ku ñu gis naw ñu si ay jikko ci ay valeurs aussi enseignement yi nga xamante ne nii moom la sanga bi jàngale te ñu am yaakaar ne moom mooy solution problème yi nga xamante ne àdduna am nañ ko ñun ñu mën ko vulgariser donc loolu mooy un peu historique ci appel bi voilà donc appel bi euh, tey lañ ñu gis ñu sol ay tenues gere protocole jour J. maanaam tey euh, protocole bi oto yi nu ñuy agencé woo ni ñuy jógee kër euh, kër gu mag kër gu mag mooy kër gi nga xamante ne xalif général des Layènes foofu lay nekk ci Yoff moom lañ jóge agencé oto yi ni ñuy toppante un mot topp deux trois noonu boo leen xoolee oto yi bu baax di ngeen gis numérotation yi ànd ak ñoom euh, dans les meilleures conditions d'une manière aussi synchronisée parce que tey gannaaw ba ñëw ñëpp ay kilifa nañ def de telle sorte que ñu mën a ànd ñoom ñëpp ba ñëw convoi bi gunge leen ba ñu agsi fii nii dans les meilleures conditions donc euh, loolu moom mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la ñuy gis jour yi ak ndox yi nga xamante ne nii Benjamin association bi ñoom ñoo koy distribuer mooy ndoxu jàmmalaay bi ñuy rootal seen bopp après dañ ciy yokk juste brandingu association bi mais yemul foofu ndaxte ñun un mois avant appel bi si la action yi concrète di ñëw si la action concrète c'est-à-dire que dañuy am trois semaines yoo xamante ne nettoyage kese la ñuy def dañuy commencer jàmmalaay li muy rëy yëpp yàlla seede na ne dañuy lay cet ba cet semaine yàlla la ñuy jël lay cat ba cat méthode la rek méthode la amaana ba boo leen fa ñëwaale tey période nettoyage yi ngeen gis ne méthode la mais dinañ lay cat ba cat bu semaine boobu jàllee nag ñu dugg ci yoof biir yoof rue ak ruelle yi duñ bàyyi fen dugg nettoyé ko ba mu set ngir que gan yi nga xamante ne nii ñu ngi ñëw bu ñëwee fekk dëkk bi set mais beneen semaine bi dernière semaine bi nag la ñuy dugg kër xalifa bi ak kër rakkaam yi nga xamante ne nii ñoo ko war a accompagner si mission bi euh, nettoyé kër yi et tout léegi dernière quatrième semaine mooy semaine bi nga xamante ne moo ñuy yóbbu ba si célébration woote bi semaine boobu nag la ñuy def social 100 pour cent la laa tuddee social 100 pour cent dañuy jël ay kit alimentaire gën saa néew saaku ceeb la ak bu bidon diwlin bu ñuy yóbbu ci 1200 familles ren plus de 1200 familles pas 1200 personnes mais 1200 familles maanaam ay kër yu bokkul bu ñu gisee ñaari nit sax yu war a am yu bokk kër dañ naan noonu am na beneen kër bu ko yelloo donc nañ jël loolu ñu yóbbu ko ci beneen kër donc loolu noonu ci ci la vision 129 inscrire te mooy action yi nga xamante ne concrètement mëne na ko di indi affaire bi ndaxte action yooyu booy seet porté bi ren dafa xaw a évoluer ndaxte dañ daan def laayeen kese mais ren dañoo dugg yoof jof gi yëpp lañ dem maanaam teg ko jël jël kii bi teg ko ci loxo imam ratib bi ak jaraafu yoof bu ko defee ñoom nag ñoom ñoo def répartition bi si différents comités de gestion yi nga xamante ne noonu la quartier yi organisé wu. donc d'une façon avancée daal loolu mooy taxawaay bi nga xamante ne ñun ñu ngi koy am ci célébration appel bi. waa ñetti sites yi euh, yaakaar naa tey buñ commencé Cambérène par exemple tey ci suba Cambérène kan moo fa tëdd ñu ne Seydina Issa Rouhou Laye moom mi nga xamante ne moom mooy taawu sang bi moom moo ko wootu woon moom mooy premier xalifam waaw te ba pare moom aussi moom mooy bunta bi nga xamante ne moom mooy joxe moom ngay jaar pour agsi ci bi mooy Seydina Isa ndaxte moom moom lañ xam jëmmam ndaxte ñu bëri dañuy gis maam Seydi naan bàyyi laa yëngi nit ñi moom lañ xam jëmmam alors que moom mooy doomu sang bi alayhi salaam si moom la ñuy jaar pour mën a am sang bi moom la ngay xam ba pare xam dayoom xam li mu toll pour mën a xam kan mooy bàyyi laay alayhi salaam ndaxte man yàlla def na ni sama maam moom daf ko daan denc maam Sidi dafa daan denc sama maam te yàlla seede na ne avant muy laaxu la ma dénk loolu moom moo doon wax moo ay euh, mojisaat yu am am solo yoo xam te ne moom moo si daan teg bëtëm lu si mel nii bu ma si raconté di ma ko raconté waat maanaam da toog ci ëtt bi ne ko kat jox ma sama kurus si néeg bi mu dem fekk ko ci néeg bi moom mu toog téye kurusam mu génnaat fekkaat ko ci ëtt bi mu toog ne ko dellul nga jox ma sama kurus nee na loolu nag da doon am à répétition ak yeneen ak yeneen donc lépp di wane moom nit ngi euh, moom maam Seydi moo am dayo boobu baayam yi nga xamante ne nii moo waral woote bi nan la war a mel donc état bu Cambérène solo soosu la am ndax foofu mooy ubbeeku foofu ngay jaar pour mën a accès ci Baay Laay léegi état bu Ngor bi buñ ci ñëwee xunta mi xunta mi euh, waykat bi mu ngi naan leeram ja am na junniy at sa ngor di war fu mu dal boobu xunta mi nii la ñuy wax te Baay Laay fii la nekkoon mais leer durant mille ans nee nañ muy wër àdduna di wër àdduna di wër àdduna waykat bi teg ci gisul lu ëpp sutura lébu ci xeeti àddina ba bi mu ñëwee Yoff gis fa soxna su baax nee na soxna si sell ñuy wax soxna Kumba moom mi nga xamante ne nii tey moom mooy moom moo ko jur moom moo ko meññ ci xeetu lébu ci xeetu xaagaan ba tey euh, doomam jooju màgg ba indi woote bi nii tey mooy mbóot mu rëy bi nga xamante ne waykat bi sax mu ngi koy way mbóot mu rëy mi laax woon ci jóge ci xunta mi feeñ ci Yoff wootee fa loolu mooy deuxième étape bi solo si bu dee troisième étape bi nag mooy yoof suba yor-yor bi boobu moom daanaka mooy lépp ndaxte mooy célébrer carrément appel bi moom moo koy célébrer ndaxte euh, bi ñu ko def noonu heure yor-yor bi si la bàyyi lay taxawoon dimanche ci beeñu yoof yi woote aji boo daaye laay ñëpp di ko dégg mbir mu universel ndaxte lii ci am importance surtout mooy que bàyyi laay oowul euh, ay nit kese. in si wal jinni la wax te inni rasulullah ilaykum la wax man dama koy wax di ko waxaat Seydina Limaamu li mu wax dafa leer c'est clair et sans équivoque donc nañ dégg li mu wax lenn moo am nga gëm ko ci wala nga weddi ko ci mais pas que nga koy jéem a rétrogradé di ko delloo feneen te bàyyi laa inni rasulullah ilaykum la wax yonente la woote ñun communauté laayeen ñu gëm ko ñu ne ko amana ndax mojisaat yu am am solo yi nga xamante ne ni moom lañ gis donc solo si yoor yoor bi loolu la ndax mooy marqué carrément euh, woote bi célébration woote bi dëgg dëgg dëgg dëgg foofu la boo yoor yoor moo tax euh, toujours boo leen ko fekkee di ngeen gis benn émotion bu palpable nit ñi boo leen gisee euh, mën nga sikar sikar bu ndaw sax ñu bëri dañuy daanu leer ndaxte émotion bi day bëri tellement que ni dañuy am impression que ne ñun dañuy revivre moment boobu noonu moment bi nga xamante ne mu ngi doon oote ak condition yu métti yi nga xamante ne nii moom la daj et tout ba pare mu woote ba ren ñu célébrer cent quarante deuxième édition bi chaque année aussi li mu doon wax du dañ sarxa sarxa yaati xar ba xar ba yaati penkuy penku yax saw yax saw yi di ñëw communauté bi di yokku gane di yokku euh, nit ñi aussi di yokku ndaxte yaakaar naa euh, yàlla nee na ñaan leen ma mu may leen ñaan leen ma may leen sant leen ma donc di ko sant cinq cent alhamdulilah par yooyu noonu di si am yokkute boo xamante ne tey ku ñëw yoof di nga a am foo dal di am foo lekkee di am foo naanee appelu ren bi nag c'est plein de symbole lan moo tax c'est plein de symbole ndaxte mooy euh, man boog man mi bi ma xàmmee ba tey fekkee naa jamonoy Serigne Niang mais Serigne Ablaye lañ meen ñun bi mooy premier appel nag bu ñuy dund te moom nekkul suñu xalifa concrètement bii te mooy premier appel bi nga xamante ne moom la ñuy dund ak suñu xalif bii bu bees bii nga xamante ne mooy Seydina Mouhamadou Makhtar ibnu Seydina Mandione di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ak bépp xalifa général boo xamante ne nii mu ngi ci réew réewam particularité bi aussi mu ngi ci euh, deux ans yi ñu toog defuñu appel ndax Covid bi ndaxte boo leen fàttalikoo bu baax appel bi da daan bu daan jege si rek Covid yi ñu ne kaa yi kaa yi bëri na ak yooyu noonu ba kilifa yi doon wax ne nañ fomm daaw lañ def te daaw liñ defoon dañ ne ku nekk na defee sa dëkk. donc euh, d'une manière vraiment réduite si lañ organiser woon appel bi mais ren nit ñi dañoo am dañoo dañoo enthousiaste daal koo xool émotion mu ngi feeñ ci bët yi koo xool mbégte mu rëy a rëy mu ngi koy animé ndaxte tey lii dañ ko soxla woon ndax dundal bi ñuy dundal dëkk bi ci laa ilaha illallah ñun laa laayeen loolu moo ñuy dundal moo tax appel bi vraiment amul dara dara dara dara luñ koy tënkaaleel appelu ren bi moom daf ci raw wala rawati man déjà message bi may lancé jeunes yëpp mooy que nañu engagé wu nañu engagé wu te nañu engagé wu si diine ndaxte vision 129 je pense que tey modèle la modèle la boo xamante xam nga lu baax dañ koy copier modèle la boo xamante ne nii tey ñëpp war nañ ko mën a copier ñu dox ko ndaxte ay jeunes la yu engagé te li ci gën a neex mooy euh, ay compétences yu bëri lañ dajale. ay compétences yu bëri lañ dajale man spécialiste de communication la communication laa def élaboration de stratégie communication ak euh, marketing digital mais am na ñeneen ñoo xamante ne ni euh, ay financier lañ ay financier ay cadre financier am ay ingénieur am ay analiste am yeneen ak yeneen ak yeneen donc ay compétences yu bëri la yu joxante loxo créer ay euh, commission ba ci commission stratégie et développement muy lu raar ci association wu loolu mooy permettre tey ñu am benn ndëgërlaay bi chaque année aussi am amélioration continue maanaam daaw defoon nañ 597 donc ren ñu def 1200 déwén ñu am yéen a def 2400 donc tey loolu noonu moom la ñuy euh, conseil jeunes yi nañu organiser wu nañu def synergie des compétences pour que tey objectif yi ñuy am même bu fekkee du diine bu fekkee dans la vie de tous les jours muy réussite socio professionnelle ñu mën ko am ndaxte lu kenn man ñaar ko ko dàq te ànd ak nit taxula bañ a egg yaakaar naa boo bëggee sori sax da ngay ut ko àndal ndax nee nañ kii ba sax loin sax ménage sans monter donc voilà loolu la moo nekkoon message boo xamante ne nii dinaa ko doon naa ko jàllale si yi bon lu ci lu ci xaw a jagari nag jàmbu doyet bi la lu ci jub ñu xam ne yàlla suñu borom moo ñu kàttanal bañ mën ko jubal El Hadji moom Hadji Mamadou Laye Ndoye membre de la commission communication de Vision 129